muy Tapha Mbeur ay doomu ndey ñëpp mu wuy képp ku doomu Parcelles di takki ngemb rek ndax Tapha ku ko xam-xam ni du taxawlu kenn doomu Parcelles yëpp ñoom c'est normal asalaamaaleykum wa rahmatulah tey ñu ngi fii ci parcelle gannaaw bi ñu nekkee woon fële ca Fass ak Ada Fass gis ngeen foofu ni mu demee Ada Fass yow mere naa la torop ak sa waa kër mais làmb la tey Tapha mbër moo de fii ci Parcelles Assainies waa Parcelles yëpp ñëw di ko jàppale 100 cent parcelle bi le 31 la incha allahu rabi Tapha Mbeur Ada Fass arène nationale xayatul Iba Mar Diop bésu Fallou Ndiaye la bésu jeu technique léegi nag dañuy dund ambiance interview entraînement ak Ablaye ñu seetaan ba si kanam et bravo à la presse. ndeysaan dafa bool chorégraphie bi def neex na si ba teel ñi nga yëngu te xam naa ni ndeysaan moo ko Ada Fass du yomb dafa nekk man octobre dina neex dina gaaw xam naa ni daal ku yéex doo gis jël ñaari xale yi ñu ngi si forme mais cey dafa mbër Fass waaw waaw wala ma Albouri ndeysaan thank you waaw onze billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bañ sante yàlla jul si yonent bi di gërëm suñu ñaari di nuyu waa parcelle yëpp di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ngeen ma fekkal fii muy samay xarit sama doomu ndey nga xam ne sama combat bi ñëpp ñu ginnaaw seetaanu waaw di nuyu ki nga xamante ne mooy sunu kilifa di suñu grand Ousa 2 xam ne man sama dugg ci làmb lépp si moom loxoom la jaar sama premier combat arène moo ko dox moo ko wax ba bi ma koy bëre kon tey man su ma amee kilifa si làmb Ouza numéro a la dama koy ñaanal yàlla lépp li mu bëgg si xolam moo xam yàlla na ko suñu borom defal mu gis ma mu ñàkk ma gis maa ngi koy ñaanal te sama doomam laay mës di doon ba àdduna di tukki mënu ma am lu ko gën mënu am lu ko ëpp moo ma dugal si bëri dóor dutal ma combat doxal ma lépp lépp lu ma tey def ba nit ñi naw ma moom naan téye këram saa ma jógee entraînement toog ñu ataaya muy waxtaan del def nii del def nii xam nga di ñaanal daal ñaanal waa parcelle yëpp mbëri fi am combat yàlla yàlla may ndam di ñaanal waa parcelle 1 ba 26 Grand Médine Grand Yoff Cambérène di woo ñëpp ñi xam ne ñu ngi ñu may dégg man ni woo si combat bi ñu ñëw ñaanal ñu ñaanal seen doom yàlla may ko ndam incha allah. génn bi lu ko waral tey. waa tey loolu xam nga rek maanaam tey dafa gën parce que dafa gaaw a timis mais du dara da fekk pare nañ li ñu waroon def yëpp ñu teel a génn def li ñu war a def dem dugaat suñu rux di xaar dimanche jot incha allah rabi ñu ñëw def li ñu war a def yàlla may ñu ndam incha allah ñu ñibbi si parcelle. waaw dafa tey boo xoolee bëre bi nga xam ne nga woon bëre fi mooy Médina te yóbbu nañ ko arène nationale comme li nga waxoon lan bëgg nga dellu si waat si rek comme à domicile la woon gars yi changé ko tey say supporters lay xaar gëj laa gis am si loo jógee am fa war a jëm te la ngay assuré say supporters waa supporters yi ñoom pare nañ supporters yi pare nañ stade bi ñun amul ñu njëriñ ñun ñu doon ñun bi ñu dugg si làmb dugg ñu woon pour stade bi làmb la ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ñu si ak jàmm pare naa sama adversaire pare na ñun ñëpp ñu ngi def li ñu a def kon dañuy xaar jours yi rek yàlla may ñu ndam ñu indi ndam li parcelle incha allah. dama laaj sax Amdi Moustapha sa digganteeg Tafa sa digganteeg Ada mu ne seen diggante amu ngeen ab diggante moom moo la mas a laaj yow da ngay dëggal ne Tafa Ada Fass moo la mas di laaj. Ada Fass ak la yàgg a laaj boo dajeeg moom noo ko war a def. bi mu duggee ci ba léegi mi may laaj. donc loolu noonu yaakaar ko mais nag boo tokkee mbër a waroon wax instant yi jëf moo des dañ ñaan yàlla may ñu tal ak fekkee bis ba ñu jëf yàlla may ñu ndam incha allah yow liggéey nga lu la leer ne actuellement fi mu nekk nii bés ba euh, maanaam moom Ada Fass bu ngeen dajee ci xeex wala ngeen dajee si bëre maanaam du yóbbu lu ko neex bu arbi sifflé du yóbbu lu ko neex incha allahu bare nañ ci côté yëpp wax amatul jëf moo am yàlla nañu yàlla may ndam ci kaw Ada Fass incha allahu rabbi mais Tapha euh, bu arbi sifflé kuy loolu yëpp bu ñu ci bis ba dina ko xam man pare naa li ma war a pare nee naa la wax ji wax nañ ko ci signature ba li ci des rek mooy bis ba jot wax amatul jëf rek a des. Eh, eh. ana Tapha nga dégg aada démb nee na moo la ëpp doole moo la gën a réew moo la ëpp supporter moo la gën a dof ci ay kàddoom. loolu waxam la rek dama ne loolu moom jàkkaarloo nañ. xam nga li may koy ñaanal rek mooy wér ak tal ak fekkee ba bis ba parce que làmb ji yaakaar naa ñetti fan moom wax moom bari wax la quoi lépp lu mu wax ni moo ko ëppale na ko ëppale bañ bëri ba pare moom yow yaru moom la fay am moom mooy mooy dirigé mooy attaqué loolu moom la la sant concerné li may def moom bu arbitre sifflé dina ko xam mais lépp lu mu wax rek moom la concerné importance su waaw am na solo lool moo tax ñu fonk nii di ñaan yàlla may ñu boo gisee suñu grand Ouza 2 taxawoo ñu nii ça veut dire bi am na solo boo xoolee premier combat bi mu bëri si arène nee naa la moo ma taxaw moo ma ci dugal moo ma wutal lépp kon tey su ma amaatee gis ko sama ginnaaw am na solo léegi am na solo mais dafa am foo nekkoon muy Grand Médine mbooloo nga jógee fa ñëw Rock Énergie laaj naa léegi Pape Mbaye sa coach mu ne am na yow am na loo xam ne nii def nañ ko ci yow loo xam ne dimanche war na feeñ dafa mbër yan soppeeku la sentir ci yaramam ci côté bëre ci côté xel ci côté dallu par rapport ak bi mu nekkee Grand Médine ak Rock Énergie bi mu nekk tey. waaw damay sant yàlla rek ndax lépp parcelle la lépp ci gétt gi la bokk kon tey dañuy ñaan yàlla Rock Énergie bi ma fa ñëwee taxaw nañ ma taxaw ba nga xam ne ni Pape Mbaye teg na ma coono yu méttee méttee métti bi gën maa bëgg combat bi booy mbëri yi du ma limee damay juum. mbër yi nekk si écurie bi teg ma ay coono yu metti ci bis ba incha allahu rabi yàlla nañu si yàlla may ndam bu seddu guy ñu kontaan équipe bi kontaan parcelle kontaan loolu laay ñaan incha allah. fan yi gis nañ surtout Guédiawaye moom dañ koy tudd boo xoolee ñu ubbi saison bi bi biñ ko ubbee quatre victoire lañ yóbbu suma juumul dimanche ba ca toppaat dimanche bi passé ñu gisaat ñu boîte victoire bu rëy tey parcelle war a ñëwaat ci grand combat war ko seex ak Fass. lan mooy motivation bi ci côté boobu. waaw ñëw rek jël si ndam ndam lañu indi saison bi incha allahu rabbi képp kuy ngemboo parcelle di dem uti ji incha allah ndam ngay ñëwaalee bu neexee yàlla suñu borom. Ah. loolu lañu liggéey ci loolu la ñuy dox ci la ñuy xëy ci la ñuy gont kon moom la ñu gëm te incha allahu rabbi dimanche dañuy jëli ndam indi ko parcelle. bu neexee yàlla bu soobee yàlla suñu borom. ci xeex wala bëree. ci lépp bàyyiwuñu dara. combat bi li koy gagné. combat bi li koy gagné liggéey nañ ko ba pare incha allahu nañ bàyyi ba bis ba wax amatul. mobilisation bi foo si toll. mobilisation yëpp a pare. bu ngeen gisee fii nu mu demee. te tey jour ouvrable la. waa dimanche ngeen di comprendre. gars yi nañ combat risque la lan moo tax ñu bëgg arène. risque amul. man gëwuma yooyu. Ah. man li ma gëm mooy xamal la. Ah. ñëw bëre daan ñibbi. risque amul ci làmb xale du jël risque. Ah. xale lu mu def war na koo def nee naa la xale du sonn day xiif rek. te góor du nelaw day noppalu. day noppalu dëgg la dëgg la lu mu def daanu bu neexee yàlla suñu borom. yàlla nañu yàlla may talak fekkee lu mu def daanu. mais nga ne góor kenn du ko yërëm. góor du yërëm góor. ku jékku sa morom. yéy. yéy ku jékku sa morom yéy. Fallou Ndiaye loo koy wax. looy wax Fallou Ndiaye mi tëgg ñu ngi koy ñaanal jàmm waaw di di di sant sama staff ku si mel ni ñoom Ousmane Diagne Ousmane Thiam Papis Ñaama Jibi Gomis Cheikh Gomis ñoom Abdou Gomis di sant ñoom Moualvin Mandiaye Top ah ñoom Zim Tafa Faye Amdi Moustapha borom parcelle ñoom Nijaay Jéggi xam nga Ablaye Ñaan xam nga Ñas Teranga maa ngi koy ziar bu baax sama sëriñ sama xarit Ñas Teranga combat la Ñas combat dinaa la ko wax dinaa la ko waxaat. Ah. combat bi combat am la. waxal ñas teraanga. ñas teraanga. la. tafaane na combat sa combat la. waaw di woo ñëpp ñi ñuy. ma leen di wax mais damay nuyu Marème borom Rena business ak Mouha borom Toba import export. waaw di ko nuyu bu baax di ko wax combat bi gaa ngi koy déglu. waaw Marème ñu ngi lay yéen yéen presse bi nag. ñun amuñu seen fay. boo gisee ma teel a génn. respecté presse bi la. parce que dama ne sama gaay presse bi dañoo bàyyi li ñuy def ñëw jël suñu nañ fexe 5 heures wala 5 heures 30 fu jotee ñu génn balaa timi sa jot ñu def li ñuy def ñoom li leen fi indi ñu am ko seen xol seddu ñu ñibbi ñun bu du woon yéen kenn duñu xam parce que tey lu ñuy def sans yéen du am valeur malgré làmb ñëpp ko bokk ah. mais presse bi dañ leen war a jox cër moo tax ñu def li teel a génn joxleen leen cër di leen sàkku ñaan xam nga di leen wax bu lu ñu def te neexul leen rek ñu ngi jégalu te saa su ñu ngi ci lu leen neex parce que yéen a ñuy génnee ñun lu ñu def bu ngeen ko génneewul du neex. li ngay fecc dimanche nu loolu dama koy nëbb nee naa làmb ji. làmb ji lépp lépp surprise la di woo imam Kader Père Galas borom borom xombal sama papa Fallou Mbaye waaw di woo waa Ndiassane waaw waa Ndiassane xam nga sëñ Bamba Kunta combat bi combat la maa ngi woo sëñ Bamba Kunta waa Ndiassane combat bi seen la maa ngi sàkku ñaan si ñoom yàlla may ma ndam mais yàlla baax na.